pro centage dama ni lu mën a nekk la ci diir bu gàtt ànd ak ay njëkk yu xéewale dawal ci boutique teint pro pourcentage mu jox la ay cadeau de corps yu amul fenn nga ni ma la ko wax guerre bi ci réew mi ku nekk naan mën a du kenn ci ñoom ay dëkkan madame Diop moo ko yor indil na leen ay gamme yu xew ci jamono gamme marron chocolat complet gamme marron métissé complet gamme teint complet gamme complet weex tàll teint pro ku ko wax wax savon de corps crème de visage gommage lotion ay huile yu naturel ay sérum yu c'est ayib say loxo fay ñuul di dëgër indil nañu leen ay crème tache mais et pieds crème beurre de karité ay rew de flas sonal teint propre ne yow kañ daan def façon façon réaction yu bon yi lii c'est des trucs d'animaux malay sax xeexatuñu ngeen nek ci bir kër gi mel ay gaynde yow kañ nga daan def li tu as été toujours correct bul top ki hein defal na nga daan def boo amee lu la naqari nga ñëw fii fekk ma wax ma ci ko bu ma amee lu ma ci faj ma faj ko ci bu fekkee loolu dafa jéggi samay compétence ma xaar ba papis ñëw mii borom këram ma wax ko ko lii bu mu amati et puis des grandes dames comme vous vous vous dites civilisé ñu civilisé du ñu def réaction yi ngeen di def nekk ci kër gi mel ni mais lii c'est mais c'est trop rafetul elle te provoque pour répondre ci provocation yooyu bu ngeen fi gaañantee lu ngeen di wax walla ngeen reyante fi ñun ñëpp daal di dugg après ngeen toog di ko réccu mais diggante bokku jëkkër ak ak ak bokku kër gi lan moo fi jar reyante lan moo fi jar xuloo lan mo fi jar xeex li dal mom tiane bu mo amati. yow eh bett ma sank motax nga yek sama kaw mais xolal soy nan pipe ba def la lu bon. Eh, léegi eh eh yow Leyla da ngay saaga ci sama kanam histoire bi jeex na maa ngi wax ak mom xana gisoo ne maa ngi toog lu ngeen di def dama toog. xana ngeen mën a am kersa sax ci sama kanam histoire bi jeexna na. jeexul moy waxu lan. jeexul wala looy déggee. yow rew nga de. yaa ma gën a réew. ii ku rew ni yow lay mel pa bu rew rew a tax nga toog fi nga toog yow amo jom de amo jom say so xëyee ma lay jox sa toroxal dina la ba nga mokk nga ne déet ma bàyyi yow so amon jom do dugg samay mbitt

liir ko résidence kër yaay booy résidence yaay la sa yaay nga ko tuddee waaw d'accord dama bëgg nga dindi ko sa yaay man maa doon borom këram mu sëyal ma sëy bu rafet nekk jigéen ju nangu nekk jigéen ju jullite nekk jigéen ju ma déggal nekk jigéen ju am kersa ma téye ko na ma ko war a téye musul saaga sama baay benn yoon musumaa saaga benn yoon musumaa wax mu teg ci baat musul xalaata jàll baat samay wayjur wala samay mbokk ma jur la fa ma la war a jullee nama la wara yare nama la wara tete diine ji nga judd ñu nampatal la ko yar la ci ba yàlla ubbi lii mu ubbi ba nga mën a tabax kër gii tey ba sa xel dem ci di ko ko tuddee na day bu meloon ni sa jabar jii doo ko ko xalaati tuddee kon nag sa yaay mérité lii ci yow sa yaay mérite na lu gën a foor lii ci yow lu waay di wuyoo da koy niru boo demee ba jël sama tur soxna di sa ndey di ko tuddee sa kër ñi ngi fiy dugal dañoo war a niru loolu kon nag dindi ko ndax yaa ngi dugal sa biir kër koo xam ne xas na sa ndey xas ma xas sa maam xas la Saga nama khaza saga sandai saga sama saga sunu askan ndax man la saga sa soxna dama wax ak mom ci bir keur gi mo saga ma kan mo la saga sa ñaareel du ko tuddu turam leila el ose mon moom mu saga la xamoon na ne ci lolu la jëm ndax da nga traîner lo ne newon na la li ram ci ñak bi la jëm te bu ci amé keur du fa laa tëralee mujjee suma yoon nekku ci waaye lii na deñ loolu man maa koy régleel sama bopp. ma kër gi tuddee ko ndayam moom ndax ndayam moo xam loolu. billaay lay laa tey la mujjee saaga papa man may lijjanti lii lay laa Leyla man xamoon naa ne da ngaa réew mais tey jii laay doog a xam ni sa réewande dafa ëppi loxo yow lan moo tax ngay saaga sama papa lan moo tax ngay saaga sama papa laa wax. Eh, xoolal wuy ma dama laa poser question. lan moo tax ngay saaga sama papa. sama saga ma fay ko. waaw nit nga wala lan sam papa su la saaga nga xamni kilifa la nga bàyyi ko dem solo mom mi di kilifa xamone ne ma saga xam nga lu ma yegal wax ci dama bëgg mu yam fi duggal nga ni mot dem balu ji ak sama papa. oui ma yamu fi gis nga su ko dolliwaatee. ma dooleel ko saaga yu raw yi ma ko saaga. yow yow yow da ngaa dof wala yow lan la da dof wala lan la. yow defoo ba sa loxo di ma laal. ok du ma la dóor. man dóor naa jigéen bi ñuy dóor. waaye nag sama papa man moo ma la gënal tey moo ma la gënal ëllëg te comme que mënoo respecté sama papa xam naa ne man doo ma waaye kër gi nag maa rëddoon ni ñaata tu planté clic été kalak nga génn sama kër ci biti fase naa la. Santage indil na len ay gel de douche yuy tax ngay tak di nesnesi mangi si kuy lakatu dal du ko wax dawal ca aseni unité 25 ca gannaaw stade Léopold Sédar Senghor nga fekk fa madame Diop Aïda kan mu janook yow defaral la sa teint ba sans filtre ngay belli Aïda Kane madame Diop nee na téye leen seen jëkkër yi dafa sedd indil na leen ay plateau de parfum yu amul fenn ay parfum de classe wala sax xaay classe dama ni cuuraay yaa ngi fay gun-guni foo romb muy xeeñ dawal gaaw balaa muy jeex fii rekk la la maison des grandes dames yéen la fi nekkal